terjiil yow ma tarwiya daana ko woor woor arafa yii yépp nag nga ba ko fa te naa damay roy man yonen yonen ba nag lum saxaloon seex jiili def ca manoon danaa ci lim lu tuuti man sunni yu dëgg nag la won li nit ñi ñépp sàggane bayiwuma mag ak gone seex jiili moom fii la ma ne asamaan mooy fonko ëb dël bañ wor moom lum la wax payee ko bor moom lum la dig la nar lii rekk a tax mu néewi noon waxtu mbooloo daje muy julli xiit mbaa daje moo jëkka teew ajuma ji kenn du ne nan xaar ilimaan tabaski mbaa ak korite calaa ko gën dina wati kenn du moom laay neggati otoom bi moom nga jëkka seen saa bu desee mu ni gede na jege kat ngir weñ gi mën naa sikk kat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 fu mu toog ma ngay sàkkuy ngërëm jaamu ga ko daa yërëm du tay mbaa mu jàmbatoon te nii mu mel ci ak magam baat yeneewee ña ko xam nee nañu lii moo masa am sunnaam si moo leen ci mënoon fépp bu mas na du masa jib du nangu ab baat di fa jib na julit bu ne ci jub sa contrat nga si ñëwoon bu noddu daanoo it jógal jàkka ja dal di jawal ku buur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggale du yoon nee julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yépp a xóot cat digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njëlbeen waxtu dafa am ca digg waxtu dafa am baba jatal waxtu itam am na ca ñoñ mooy seen defiin seex jiili nee na bopp bii moo ko gënal yow donga bii jéemal roy sa sang bii fuñ nodde julli dem sa yoon gannaaw sawaay mooy ilimaan bu nee ca bopp ba du kiimaan maamum na topp ilimaan wagadu wuuteeg bopp yoon ku ne naroy cib sëriñam seex ji li moom lii di mbiram forab wanee tëll mu jam te mës la mooy nag benn yoon kër gu ne am luñ fa miin kër jiil julli lañ fa miin ak sunna xayril xaalamiin moo tax ñu def ko ilimaan nim fonke julli xam nga ko boo ko xamul ma wax la ko ubbil sa nopp diglu ko ma wax la nim ko ite woon amoon na bis muy taw di taw di taw di taw di taw di taw ba fépp taa bani xelaw foo joggi mel ni ak sayaan nit ñaa ko naa jullil ca ngir fépp fépp dafa niir ca taw bi daa bari te foor te daa ronaat mi ngi ngeleen mu jël bara pileem firi di xuus ca wal may ter teri kanam ga leer di ler leri tisbaar la woon baxdaat la woon ba mu jullee ba ñëw mu ni yére yu tooy du moo tane yére yu ñuy xoyam ma ni nan jaamu rabbal alamin 78 muy gelaw ba kenn du gis foo manaaw ajuma jooja cey la xew tuubaa la woon di takkusaan seex jiili tool ca na na jàng leen yéen salam salaam bañ mu melni ni daam ngelaw du ngantal iliman seex jiili bam julé ba ñew né selu na seelu ngelaw muy wis saw nga selu taw kam yonen ba do ca naan jul tawul te gelawul te sun borom daa leblewul na daté nañu jubal ca jullikaay ya ben yoon waxtani mom gannaaw du jeex ndigal li moom bu nu ci yeex julli gi doo toog rekk ba féex maxtaar mi xam nañ la mu doon seex julli julli sunna ga ca ngay yéem farlu ga ku faatukaat ku juddu ka du tax mu soppi lam naroon magam ju ja soxna may keroog ba muy wàccub liggéey ba tekki xaadim ngeen ji bàyyi mu soppi aw doxiin doomi sëriñ bi ñépp a di jaale seeg di yéem li xew donga yi yépp ñi ko ëw ma wax la nag nan la defoon ba julli yoor yooram di jot mbooloo ma toog dani bërét dugg ca biir julli ko kër wér dafa jàngal xuraan